leen di sant di leen leen remercier yéen ñëpp kontaan lool ci yéen jël leen numéro téléphone bi 78 689 55 55 Ndeye Khady waaw pâte dentifrice yaa ngi nii ñu doon may laaj pâte dentifrice pâte dentifrice yu baax si gémmañ mi ngi nii mooy produit Allemagne bi 100 pour cent aloe salaam élixir bi 105000 laa koy jaay moom livraison bi boo fayee livreur bi ñu defal la ko 100000 ba fay livre ñi defal la ko cent mille franc am na proté bi mu ngi nii fu la munta métti sa yaram lu boo liggéeyee ba ngoon jot nga na sangul ba set boo xëyee da ngay dem sa yoon proté bi tim disponible na merci beaucoup partage leen live bi ñi seen kanam yi cere wala ñu am rougeur saabu bii nii disponible laan na dafa ñu doon ma koy laaj